prétexte ou la justification de... C'est bien 14-15, hein Bien sûr. 14-15, euh, manifestation yooyu et puis de dire euh, si li ñu nangoo ci làmmiñu seen leader Ousmane Sonko. Hmm. que ñu autoriser ko que ñu bañ ko autoriser dafay am. Hmm. est-ce que c'est pas déjà les germe de d'une confrontation. waaw ouais, déjà man bi ma gisee ni nga intitulé sujet bi. dama hmm. poser beaucoup de questions. c'est-à-dire lu tax ñëpp jàpp ne on cherche vers une tension. te yow ngay journaliste booy liggéey sa liggéey nga koy def selon reflet wu société bi ak yan as yan euh, perception la sénégalais yi am ak lan nañu gis. waaw mais dañu laaj de. waaw point d'interrogation bi ci fin bi dafa am solo. bien sûr <laughs> pourquoi on pose on mhm. pose cette question. Mhm. dans un état de droit. foofu laa bëgg ñu ñëwee. Mhm. c'est-à-dire <coughs> Sénégal réew la boo xam ne état de droit la. quand on parle d' de droit c' est ki état soumis au droit bu ñëwee état bu soumettre au droit mooy sama diggante ak état bi man en tant que individu di citoyen sama diggante ak tous les groupements yi nga xam ne ñoo composé l' bu ñu nee mooy toutes les personnes morales de droit public état au sens restrictif mairie bi comme collectivité locale wala nga jël société nationale wala nga jël établissement public comme COUD ñooñu ñëpp sama jëflante ñoom droit moo ko tënk. ñett yi lañ wax ne moom lañ bëgg def ci semaine bii di ñëw bi su jiitu mooy meeting le 14 mars état de droit boo xam ne constitution bi article 4 moo jox parti politique yi droit ak devoir participer à l'animation citoyenne à la formation des citoyens et à l'animation de la démocratie benn beneen bi article 58 dans le cadre du référendum de 2016 ne opposition bi am nañ droit opposé wu ñu consacré ko ci li nga xam ne mooy charte réew mi bi féete kaw kon meeting c'est une activité boo xam ne parti politique yi ñoo koy def pourquoi les gens s'interrogent sur une possible tension benn deuxième activité bi mooy mardi le 15 mars mercredi le 15 mars mm-hmm. nañu organiser manifestation ma delluwaat ci constitution ba léegi article 8 énumérer ay droits ak ay libertés yoo xam ne c'est des libertés publique collective civiles bokk ci droit de manifester bokk fi liberté d'expression et cetera donc loolu constitution bi ñoo ko maye. beneen bi ci tegu mooy jeudi 16 mars Sénégal justice bi am na loi bu ci ëpp solo mooy loi d'organisation judiciaire loi bu 2014 boo xam ne moo organiser la justice de ce pays loi bu ndaw la mais dafa émettre ay principes yu am solo. Mm-hmm. bi ci jiitu mooy le principe de publicité maanaam les procès sont publics mm-hmm. parce que bu ñuy rendre la justice même dans la société traditionnelle moo xam musulmane moo xam chrétienne moo xam africaine traditionnelle bu ñuy àtte ci pénc bi nañ koy defee parce que dañuy sanctionné koo xam ne société bi dañu jàpp ne li mu def du yoon wala ñuy àtte ay ci seen i problème civil privé mm-hmm. il faut que société bi au non du peuple nañuy rendre la justice donc le principe de publicité ñun ñi dem audience dañ ko consacrer parce que gage la ci li ñuy fekkee parce que loolu mooy tax justice kenn du mun jeng parce que tëjuwoo sa bureau def lu la neex même exception yi am ci loo xam ne comme en matière de divorce comme en matière bu dee secret des affaires da ko exiger et cetera wala bu dee dafay troubler l'ordre public yooyu ay exception la waa képp ku ànd ak man na nga ñëw wuy ji procès njëkku fi te du fi mujj donc lii yëpp kon ay texte moo ko mayee ci réew mi constitution bi jiitu ci yeneen tegu ci kon pour lan nit ñi di posé wu ne tension mën na am xam nga lu tax nit ñi di posé ne tension mën na am c'est à bon droit parce que dañu nekk ci état boo xam ne dafa jug ne nag du respecter yoon kon mooy ce n'est plus un état de droit autre chose lu tax nit ñi di ragal mooy lii ma tudd yëpp dañ ko confisquer dans ce pays nañ def historique ci yëpp ñun Pastef Grand Yoff yàggul fii ci mois de janvier panel nañ bëggoon def panel maanaam un séminaire de formation avec le directeur de l'école du parti ak man pour defar ko militants yi ñu ne dañ koy defee rond point HLM Grand Yoff fi nga xam ne Grand Yoff muy ngénte yi di céet yi di daayira yi di concert yi lépp fa nañ koy defee 31 décembre boobu concert amoon na ci préfet ne def ñu koy tere xam nga lan la argué comme motif nee na lieu bi adéquat wut ak panel de formation mu mel ni ñun ñoo ko njëkk a def alors que loi bu 78 na ko yow booy tere ñaari raison cumulative nga war a indi mooy menace réelle menace réelle loi bi wax de trouble à l'ordre public benn ñaareel bi nga ñàkk yow ay dispositif pour tere trouble à l'ordre public boobu préfet tere ñu ko def ko waa Fann Point Amitié ci terrain boo xam ne activité yëpp fa lañ koy defee ñoom ministre Abdou Karim Fofana fa la ñuy dajewee tere ko Pastef Thiès tere ko Pastef Tivaouane tere ko Pastef Médina donc yi may wax ni yëpp ay droit la mais dañ koy tere ci ay meeting ci ay panel beneen bi Sénégal mooy réew moo xam ne malal dooma bàyyi ma fen ba ñu fi tegee aar lu ñu bokk ne dañuy casse contre le pétrole première vendredi bu ñu dëkk organiser manifestation dañu ko tere dëkk bi tàngoon man maa ngi woon Colobane doon bokk si ñu doon manifester après loolu dañuy autoriser benn ñaar tere beneen pour bëgg mouvement bi ferveur bi ci ànd mu estompé wu Sénégal léegi ngay gis préfet bu tere meeting à di cité loi boo xam ne dañu ko abrogé di daal di ne damay citer en référence article 96 bu code pénal alors que code pénal day tere ay infraction ça n'a rien à voir avec le régime de déclaration sur les réunions publiques nga xam ne article 78 la gouvernement buy communiquer ak institution internationale si wax ci affaire marche droit de manifester loi bu lay wax ab préfet taxaw tibbi Guémé dugal ci loi bi loo xam ne loi waxu ko. kon yii yëpp nag ñu ngi koy commencé tere. Sénégal ngay gis procès am nit di ñëw tribunal ñu baare fenn ne ko loo loo fay def. mu mel ni amul droit ñëw fekkee procès man ba may nekk étudiant dama naan ñëw di fekkee ay audience tribunal sans problème mais une chose inédite dans l'histoire politique de ce pays moo tax yow nga mën a nga mën nga mën nga mën a poser question boobu lu tax ñu dem vers une tension ma daaneel fenn mooy lu tax il y a des tensions mooy on s'achemine vers un rendez-vous démocratique important qui est l'élection mooy ñun askan wi dafa am ñu ñu dénk suñu baat ne ñu yéen doxalal leen ñu suñu mbir ñu ne nag ñooñu joxuñ leen lépp li ñeen jox d' abord dafa am benn mécanisme de contrôle mooy ay texte moo koy déterminer te texte yooyu fu ñu koy voté assemblée kon loi yooyu c' est de la volonté populaire benn deuxième mécanisme de contrôle mooy ñun dafa am périodicité boo xam ne dañ ngeen ñëw laajaat ñu ku ñu d' ñu jox la ku ñu d' accordul boobu nag nekk un grand inconnu ñetti inconnu yi laa ci recensé pour man moo ci ëpp solo bi si jiitu mooy inscription sur les listes électorales cest à bi war a mën a bokk France ba veyu élection mën nga inscrire sur liste électorale Sénégal ñu am loi yu archaïque yoo xam ne dañ lay wax yow yaay dem pour bëgg a inscrire ci liste yi benn ñaareel bi danga koy def ñu toog ay 6 mois. après élection archaïque euh, maanaam ci wolof. mooy loi yoo xam ne dafa obsolète dafa dafa. jamono jamono dafa xewi merci beaucoup jamono da ko da ko weesu. l' inscription pouvait être automatique systématique képp ku am 18 ans ñu inscrire la maintenant vote bu la neexee nga bañ a dem vote bu la neexee nga ñàkk a bañ a dem vote parce que lan vote droit la du devoir du obligation. Mm. benn beneen bi mooy article L37 bu code électoral li mu wax mais dafa am deux formes de révision parce que nag chaque élection dañuy changer liste électorale li tax am na koo xamante ne jugee na fi war nañ ko rajee ci liste yi am na koo xam ne daf ne man na ngeen ma rajee ci liste yi am na koo xam ne amul woon 18 ans léegi dafa war am dix 18 ans bu fekkee année boo xam ne élection amul révision ordinaire moo war am révision ordinaire nag du 1er au 31 juillet la war am 6 mois président Macky Sall daal di ne révision exceptionnelle lay def yamu fa même élection présidentielle 2019 ak yi bi ñu amoon nga xam ne c' était deux mois bi yoon mu ne révision liste électorale un mois laa koy def loolu nag c' était pour une volonté pour barrer la route aux primo inscrits Sénégal bu ngeen jëlee la rapport d' audit du fichier électoral bi nga xam ne moom la Union européenne def en 2021 daf lay xale yi am entre 18 ba 20 ans xam nga ñaata ñoo ci inscrire wu ci liste maanaam 9 pour cent 9 pour cent maanaam fukk yoo ci jël kenn moo inscrire alors que ñooñu ñoo ëpp ci réew mi est-ce que élection yu ñu jëm kon li ñuy nar a tànn sax ak ku ñu mën a tànn dina traduire en réalité la volonté du pays la volonté des population sur le plan sociologique. loolu mooy premier inconnu pour bañ a guddal deuxième inconnu bi mooy ay candidats yoo xam ne ku ci nekk am na ndëgg sërëx bu ñu la tegal boo xam ne jàll na ak ñoo xam ne ñu ngi leen di tegal ay ndëgg sërëx seen kanam pour bu ñu bokk. Hmm. ay procédure judiciaire fépp wër la beneen inconnu bi mooy jël ay nit yoo xam ne nag teg leen ci dispositif électoral bi notamment dans le cadre de la proclamation des résultat pour mel ni yow dafa am foo bëgg a jëm loolu Sénégal weesu na ko mooy lan un procureur de la République boo xam ne avec tout le respect qu'on lui nag li mu fi def yàggul de mais métti na lool ci opposition bi surtout waa passif ci ay terrorisme ci ay rébellion ci ay nit yoo xam ne dañ ne ñu ngi ñu ngi ci loxo garde à ñu xëy ñu ne gaañu nañ dans des conditions opaques ci ay lan force spéciale ci ci régime répressif boo xam ne musul am ci Sénégal ku wax ñu tëj kooku nga xëy def ko premier président de la cour d'appel mu war a présider la commission nationale de recensement des votes maanaam war a proclamer les résultats provisoires kooku xel war na dal ci moom ci koo xam ne am na fu mu wane féete mieux encore allons lire l'article L142 du code électoral da fay fekk ne dans chaque département il y a une commission départementale de recensement des votes commission départementale boobu war a recenser votes yi dafa am ñetti magistrats yu ci nekk kenn di présider am na représentant Sénat parti politique dañu am seen représentant seen plénipotentiaire mais magistra yi rek ñoo am voix délibérative maanaam bu ñu nee PV bi baax na wala baaxul ñetti magistrats yooyu di nekk ci commission départementale bu ñuy wàññee xob yi ci moom premier président bu cour moo leen di par ordonnance te kooku noonu ñu yóbbu premier président cour d'appel muy Amady Diouf ñëpp dañu gis ne c'était un procureur coloré c'était pas un procureur de la République mais un procureur de l'Alliance pour la République c'est ça notre perception et c'est pas une perception imaginaire mais elle est tirée de l'histoire et des faits dans ces conditions ñu dem vers des inconnus c'est normal nit ñi taxaw artu kon loolu moo indi tension yi à bon droit